الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom bi màttali ci ñun li nga xam ne mooy diine montali ci ñun ay xéewalam def ñu ñu nekk ay jullit ñu ngi seede na yàlla dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu di seede na muhammad jaamam la woon bu mu yónni woon ci ñun mu nekk yërmaande ñil mbindaafam yi yàlla na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yumi diin ay mbokk jullit del sax di sant yàlla bim la boolee nga bokk ci jullit ñi waaye nag ngal la way góorgóorlul nga xam lan mooy diine lislaam ngeen góorgóorlu ci seen kemtalal kattan góorgóorlu dund ko xam leen ne kat seen doom yi ngeen jàpp di yóbbu lekkool ëllëg da ngeen a bëgg a nekk ñu da ngeen bëgg ñu nekk des médecins wala ay architecte wala lu ñu mën a liggéeyee loolee ñu koy jël de yóbbu école ba du jibluwaay bi mais jibluwaay bi mooy ëllëg mu xam lu muy taxawee mbokk diine jii nag moo gën a ittewoo ci ñu koy jàng képp ko bëgg a dugg nu lislaam war ngaa xam ne sa jibluwaay bu njëkk mooy xam lan mooy lislaam mbokk diine lislaam moom mi ngi tegu ci ñetti mbir yu am solo yu munte ñàkk mbir bu njëkk bi mooy wéetal yàlla ci jaamu ko moom kese bañ koo bokkale dara ñaareel bi moom mooy tënku ci def ay ndigalam bàyyi ay tereem ca loolu moo lay tënkal kaddu laa ilaha illa allah muhammad rasulullah yàlla yeyoo jaamu gi muhammad mooy yeyoo jàngale nu ñuy jaamoo yàlla gannaaw ba it mu am ci lu am solo mooy denc lépp loo xam ne ak bokkaale la waaye dummooyu képp koy bokkaale ak boroomam subhanahu wa taala ay yéen mbokk julit tey jii da ngay gis ne bu ñu xoolee lu jëkk li te mooy wéetal yàlla bañ koo bokkaale dara seytaane fa la gën a galgale doomu aadama yi ndax xam na ne ne loolu rek moo leen mën a alag ba faw looloo tax seytaane jël na ci ñi nga xam ne ñooy wooteel yàlla di jàngal nit ñi yàlla mu joxoñ nit ñi ne leen la ngeen leen wuti ca yàlla moom far leen ko sàkku ci ñii rek ma nga jëkk réussir ca xawma nuux alayhi salaam seen sëriñ su màgg sa di wadd suwa yauq yauq ak nasr mu fexe ba nit ñi lañu waroon jagleel yàlla ci yaakaar yàlla bu ñuy waat ñu waat ci turu yàlla sukkandiku ci yàlla loolu lépp mu ne leen loolu jaru ko ñu yemene ko ci seeni yaakaar yi sëriñ soosu loolu moo rot rot di rot ba baa diine nasaraan bi mujjoon bi yonent bi alayhi salaam ñëwee leeral yooyu yépp ba mu fi jógee itamit doomu aadama yi seytaane mënaat na leen ci loolu mooy lu ëpp ci ñoom tey am na ku ñu jël doxale ko ak seen bor digganteeg seen boroom jàpp ne kii kat mooy sama wasiila boo xamee ni nii moom laa yaakaar adduna moom laa yaakaar àllaaxira looloo tax bu fokkastal woon fii di daanu au lieu mu ne subhanallah wala ya allah daf naan yaa cheikh diw ni mu gëmee ne noonu la koy xettalee fii noonu la koy xettalee àllaaxira mbokk loolu seytaane moo koy def waaye amul benn yonent bu yàlla mos a yónni lu dul dafa ñëw ngir jàngal nit ñi diine ànd ak ñoom jaamu ji yàlla amul benn borom xam-xam bu yàlla gërëm te ñu ngi ñaan yàlla sunu maam yi nekkoon ci réew mi bokk ca amul benn xam-xam borom xam-xam bu yàlla gërëm lu dul daa ñëwoon di jàngal nit ñi diine ba pare nag ne leen lii leen ci war moomu ci war ñun ñëpp nañu ànd jaamu ji yàlla waaye amul benn yonent bu mos a wax yaakaar leen ma amul benn borom xam-xam bu yàlla gërëm bu ma soox yaakaar leen ma ngal la waay loolu bàyyi leen ci xel bu baax ñaareel bi mooy ñu xam ne diine lislaam lu ñuy jàngale lu ñuy dund la mu am ci ay junni mbir yu yàlla dégle am ci junni mbir yu yàlla tere mbir yooyu lépp loo xam ne ni xam nga ni ndigalu yàlla la ci nanguwoo ko def loolee am na lu mu bëri lu mu manquil ci sa diine bal am na ci yoo xam ne sax mën na far màbb diine ji ca mooy ki nga xam ne xam ne ni julli war na ko ba pare mu lànk ni du julli mbokk naka noonu tere yi li la yàlla tere nga wëlbati ko di ko def xamal ne sa diina manqué na lool lool lool am na ca nag tere yoo xam ne mën naa dem ba yàq sa diine te mooy lu demee ni njabar yaag ak yu demee noonu bu dee shirk moom waxi noppi mbokk gannaaw bu bu dee ñetteel bi mooy jullit dafa war a xam ne jullitay mbokkam ñi gëm yàlla wéetal ko ñooñu ñooy ay farandoom amaa ku noonook yàlla di bokkaale yàlla dafa war a feeñal ci ne ñun kat li ngeen nekkee gëmuñu ko bëgguñu ko ànduñu ci te suñu borom nee na suñu royukaay bu rafet mooy ibrahim mi nga xam ne bàyyim bi ko jur ak dëkkam a xeetam la woon gannaaw ne leen maa ngi yéen siqatuñu dara fi yëg yéen li nga sax ci seen bokkaale gi lii it mbokk julit muy mbir boo xam ni tey bokk na lu metti waxumaa ni am na julit yu xamul seen diine waaye aka bari tey ko mbooloo topp ay junni junnit wala ay téeméeri junni muy jiite nit ñi ci diine te moom sa xamul diineem far soo ko laajoon la nga xam ne ni mooy ponk lislaam xamu ko soo ko laajoon ponking pas-pas xamu ko lu tax mooy jàngu ko jéemu koo jàng loolu nekk mbokk musiba bu rëy boo xam ne nii yàlla nattoo nañu ko looloo tax booy xool dini nit ñi tey la ëpp ci ñoom li ñuy gis si biti rek la ñuy jëfandikoo jort ne li mbooloo mi nekk ca laa nekk xew-xew sew xew-xew am na sàngam ma paas joxe sama alal ànd ak nit ñi bu ñuy way ma way bu ñuy def ma def mbokk loolu ay njuumte la yu rëy rëy diine lislaam dañ koy jàng yonent bi salallahu alayhi wa sallam toog na ak i sahabaam ci benn jataay boo xam ne magi sahaaba ya yaa nga fa woon benn waay génne fële sol yëri yu weex tal karaw gaa mu ñuul kukk mbooloo mi kenn xamu ko te benn jeexatalu tukki nekkul ci moom mu xuus mbooloo mi laajtewul ba ñëw ci yenente bi salallahu alayhi wa sallam toog nga xam ne ci suuf la daan toog salallahu alayhi wa sallam mu jël ñaari uumam sës ko ci ñaari uumi yenente bi jël ñaari loxoom teg ci ñaari pooju yenente bi na ko muhammad dama bëgg nga jàngal ma luy lislaam yenente bi alei salam na ko ah lislaam day mooy nga nangoo seede la ilaha illa allah muhammad rasulullah gannaaw ba nga nangoo julli nangoo joxe azaka nangoo woor weeru koor nangoo aj màkka juróom yii day la ñuy tudde lislaam xam naa da nga jaaxle ba ma lay wax sànq ne ne lislaam dana tënku ci ñetti mbir yu am solo mooy wéetal yàlla topp yàlla denc yéefir yi loolee islaam boobu ñëng ci jublu diine ji ci léppam amma boo jëlee diine lislaam ci léppam dafa xaaj ay parti yu ci nekk mu ñette parti yu mag benn ba dañ koy tudde lislaam ndax liñ koy jëfe ca moo ëmb juróom juróom juróom yooyu mu ne ko ah yow day wax nga dëgg sahaaba yi jaaxle ni kii li muy laaj xam na ko na koy laaj ba pare na ko wax nga dëgg léegi mu ne ko waa léegi muhammad damaa bëgg nga xabaare ma ngëm mooy lan wallahi soo génñoon fii tey sunu ndaw ñi ci terrain bi nga dajale leen na leen damaa bëgg ngeen xamal ma lan mooy ponki ngëm ci seen diine su dee téeméere boo ci amee ñett ñu la tontu am nga chance boo demoon ñu bari tey ci ñuy woote diine mbooloo topp leen soo leen ko laajoon duñ la wax dara ala kulli xaal muhammad lan mooy ponki ngëm mu ne ko ponki ngëm juróom benn la da ngay gëm yàlla jalla wa ala gëm ay malaakaam gëm ay téeréem gëm ay yenentam gëm yowmal qiyaama gëm dogal yi nii dogal ci ay mbindaafanam mu ne ko ah wax nga dëgg de mbokk lii ñiy fekkee jataayu tarawih yi fii ci jàkka ji xam nañ ne benn ci yooyu yépp utaloon nañ ko bis spécial buñ ko doon leeral mu ne su ko leeral ci xutba waaye quand même nga tënku ko xam ne lii nga jullit war a gëm gannaaw ba nag yow boo fi jógee fexeel ittewoo ngëm yàlla mooy lan ngëm ay malaakaam lan naka la gëm ay tiiram naka la gëm yonent yi naka la gëm yowmal qiyaama naka la gëm dogalu yàlla naka la gannaaw bu mu ne ko waa muhammad lan mooy ihsaan diina ju rafet moom mooy lan mu ne ko diina ju rafet mooy ngay jaamu yàlla mel ne yàlla yaa ngi jàkkaarloog moom bu dee ne xam nga ne munoo jàkkaarloog yàlla it nga xam ne yàlla ngi jàkkaarloog yow loolu mbokk lum ñuy jàngal mooy ndekete yàlla moom wuruñoo doxale kenn suñu diggante moom ndax yow julit da ngay gëm ne yàlla mi may jaamu kat ñi ngi jàkkaarloog man lu ma def gis na ko waaye lu ma waxi dégg na ko waaw ki nga xam ne loo def gis na loo wax dégg na kattanam yegg na ci lépp ndax xel dana nangu ngay jëli keneen koo xam ne gisu la déggu la di ko doxale sa diggante ak moom déedéet lan mooy ihsaan ihsaan mooy nga sax di jaamu yàlla ne yaa ngi koy gis boo ko gisul it nga xam ne ci loo mën a nekkee sunu borom yàlla moom mi ngi jàkkaar la jow di la gis mu ne ko ah wax wax nga dëgg de sahaaba yi yii ma ba tey mu ne ko waaw muhammad bi si penc moom kañ lay ñëw bi loolu amee mu ne ko ah loolu nag moom kiy laaj ak ki ñuy laaj ñoo ci bokk yam kenn xamul kañ li bi si penc di ñëw mu ne ko waaw léegi mandarga yi bis penc moom lan la mu ne ko mandarga yi bis penc mooy daañ dem ba jaam yu jigéen yi fi nekkoon daal di jur la nga xamee ni ni mooy seeni sang lenn ci borom xam-xam yi am nañ ci ay firi bokk na ca la ca gën a dugg xel mooy daañ dem ba jamono yaay ni mu sonni ci doom ëmb ak wusi nag nàmpal doom jooju waroon a fay yaay mujjug jamono yaay yi ñooy topp ci gannaaw doom yi di leen jaamu doom yi mujj nekk seen i boo ca loolu mbokk gis nañ ne lu ñuy dund suñu jamono yi tey la mu ne ko it dana bokk ci mandargaam ñi nga xam ne ay sàmm lañu woon nga xam ne ay àll lañ dëkke woon dàll yu ñu sol sax musuñu koo am da ngay gis ne daañ dem ba seeni sët wëlbati ko waat di xool ku gën a guddulee ay bâtiment ca loolu mandarga boobu li muy wane mooy axiru zaman alal ji bari alal ji tasaaroo ba ñi nga xam ne dañu ñàkkoon di gën a guddule ci li nga xam ne mooy ay bâtiment mbokk loolu ñu ngi koy dund tey jii boo xoolee immeuble yi gën a rëy ci ndakaaru ñi juddoo ci kaw gi ñoo ko fi tabax ñi juddoo ndakaaru tabaxuñ ko loolu ay mandarga la yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngaloon na ko jibril waaye luy jubluwaay mba ko xoolal suñu borom yàlla wàcce malaaka bi gën a kawe ci kaw asamaan muy jibril alayhi salaam mu wàcce ko ci yonente yàlla bi sahaaba yi wër ko mu posé ko question yi bi mu paree mu daal di rocceeku dem naka mu làqoo rek yonente bi ne sahaaba yi da dabal leen ma ko dabal leen ma ko gars yi génn xool xool kenn gisul dara mu ne voilà kooku jibril alayhi salaam la yàllaa ko wàcce woon pour mu xamal leen seen diini loolu muy wañu ne mbokk jàng suñu diine ji farata la ci góor farata la ci jigéen musiba bi ñuy gën a rëy bi ñu dal mooy juddoo ca say wayjur commencé di pratiquer ca mosoo toog di laaj di jàng la nga xame ni ni moom mooy sa diine suñu borom yàlla mu ne la ñu ko ragal dëgg dëgg nam yi yow ñu ragal ko ko ca loolu mbokk mun te sotti lu dul dañoo xam ci naka lañ koy ragale suñu borom yàlla nee na nañ ko jébbalul te nañu sant suñu njaboot ñu jébbalul ko comme na ko ibrahima defe woon ak yanqub mbokk njaboot googu mënuñu jébbalul yàlla ci xamuñu lan muy diine yàlla ci loolu muy nekk kon wareef ci ñun ci ñu xam suñu diine nga xam ne képp koo xam ne xam ne diine yàlla ji dund ko nam ko war a dunde ajjana moo koy xaar kërub teraanga nga kërub noppalu gaay ga nga xam ne xaari diine fiha abada waaye diine ji képp ko ko sàggane xamoo ko sawara mooy la nga xam ne moo lay xaar ngal la waay loolu kon ñu góorgóorlu jëm ci bàyyi xel bu baax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ñuy fu ñu toll di ka ñaan ngiree yàlla bañ a wëlbati suñu xol gannaaw bam ñu gëm bam ñu wërsëgale ñu gëm yàlla bañ a wëlbati suñu xoli njaboot gannaaw bam ñu wërsëgalee ñu judd ci lislaam yaroo ci ca loolu day mbokk yonent bi alayhi salatu wasalaam waxoon na ko nee ne day fitna mi ngi ñëw sama gannaaw fitna boo xam ne day mel ni guddi gu lëndëm këriis ay nit bu ciy dox du xam fan la jëm mu ne nit dana xëy nekk julit balaa ngoon mu nekk yéeféer nit dana nekk ngoon ci yéeféer balaa subaa mu dana nekk ngoon julit balaa suba mu nekk yéeféer ngiree day jaay diineem ci lu néew ci àdduna mbokk yàlla yàlla musul ñu ci loolu waaye ba ko yonent bi alayhi salaam di wax bu doon te ne ak réer da doon dox ñun la nga xamee ni nii moom la ñu dajal ci réer day naaw ba gën na passé naaw mbokk réer goo xam ne mën nañ ko sànni Amérique ci seconde yi mu yegg si ci sa biir nekk yegg si sa biir kër mbor nga ñu sànnee Australie balaa même pas une ay quelques secondes mu ñëw sa biir nekk ñëw sa biir kër tey jii mbokk ni ñu yàlla nattoo ci liy tas xabaar ci internet yi rawatina ci portable yi sunu doom yi nañ leen di fagaru ana ñaata lañuy gis ci ay groupe yoo xam ne dañ koy créer doomu aadama yi nga xam ne amuñu woon jot ci jataay yu bëri ñu fekke ko ñu bëri ci ay wootekat musuñu toog ak ñoom waaye tey sa portable nga yor suba ngoon suba fukki message ngoon ñaar fukki message ay audio yu dul jeex ay vidéo yu dul jeex lii baax na lii war nañ koo gëm xale bi nga xam ne amul ak ràññee mbokk lu bari ci ñoom da ngay gis ne seen dina yàqoo na ci loolu ñu bàyyi ci xel bu baax wallahi dañuy gis ay doomi julit yoo xam ne dem nañ ba gëmatuñu yàlla gëmatuñu yeneen ci yàlla internet moo tax ñu gëm ko loolu ñu ñu góorgóorlu ci ñaan yàlla subhanahu wa taala te xam ne yeneen ci bàyyi islam day dane woon islam day ba muy door daa nekkoon lu tumuranke bu adduna dee jeex dana doon lu tumuranke waaye texeñeel nañu tumuranke mbokk ndax xam ngeen ko tumuranke mooy doxandéem boo xam ne mi ngi jógee na doon Chine wala fu mën a doon ñëw ci dëkk bi amu fi ndey amu fi bàyyi amu fi mbokk xamu fi kenn kii la ñuy tuddee al garib yonent bi tudd ko xuraba loolu mooy nit da nga dem ba mujj islam bu sell boobu nga yor di dund say mbokk duñ la comprendre dañ lay xeex guddeeg bëccëg say dëkkandoo di la xeex guddeeg bëccëg mën na am sax say waajur di la xeex guddeeg bëccëg loolee nga la waay bu mu la yéemi yonent bi alayhi salaam moo ko dige woon ne loolu dana am fi axiri zaman waaye mu ne fa tuuba lil xuraba texe ñeel na ñooñu nangoo wéet ak islam boobu nangoo déggu coon coono yu tar yooyee nga xam ne yonent bi alayhi salaam demoon na ba ne ñiy dund l'islam fi axiri zaman dañuy mel ne ñoo xam ne dañoo ngëpp ay xali sawara loolu kon mbokk nañ góorgóorlu amul kenn koo xam ne fitna yooyu ñu wax man nga koo sax muñ ca ba dee ci lu dul daa fekk nga jàngoon ba xam lan mooy conséquence mooy yàlla ak lan mooy jeexitalu bañ a def ndigalu ndigalu yàlla jàll wa ala nañu góorgóorlu delluwaa nafaraat suñu diini nafar boo xam ne nii dañ ci lëm ñuy yóbbu mooy ñu ragal yàlla màggal yàlla xoolaat ay ndigalam ci ab téeréem delluwaat ci sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam ca xam ne mbokk yàlla ay jaamam lañu ay jaamam lañu duñu ay employéem yàllaa ñuy bind yàllaa ñuy wërsëgal mooy dogal ci ñun lu ko neex moo ñuy may dund lu ko neex heure bu ko neexee yóbbuñu ca heure bu ñu yóbboo la ko neex rek lay def ci ñun amul kenn nu ko muy tàggu amul kenn nu ko muy laaj loolu kon yàlla moomu nañ ko jébbalul yàlla moomu nañ ko nangul waaye jébbuli gi ak nangu gi du mën a sotti lu dul jànk moo koy jiite xam ne nit ne yeneen ci bàyyi salaam day daa dañu wax ne li gën ci njub yi li gën ci wax yi mooy alquranul karim li gën ci dañuy jaamoo yàlla mooy sunna yeneen ci bi li yées mooy la nga xam ne dañ koo sos ci diine ji lépp lu ñu sos ak réer la bidaa la loolu kon ñu góorgóor la bàyyi ci xel bu baax ñu ngi ñaan yàlla suñu boroom yal nañu yàlla xamal suñu diine ñu ngi ñaan yàlla suñu boroom yal nañu boole ci ñi ko wommatul wiital ko nangul ko bàyyi la nga xam ne mooy ay tereem yal na yàlla saxal ñu ci lislaam saxal ñu suñu njaboot ba baa dee fekk ñu ci ca na nga xam ne doon doon lu ko gërëmi اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين يا ذا الجلال والاكرام عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين